jëm suñu jooy ca kaw la commencé ca président de la république Macky Sall ñu ngi koy woo parce que fii ay njabootam rek ñoo fi nekk ndax ay sénégalais ñoo fi nekk di xëy di wàcc di daan seen te ay xale yu am avenir ñoo fi nekk ñu toll ci liggéey ay vingt ans vingt cinq ans trente ans même ñun mag ñi nga xam ne ñu ngi bëgg a dem retraite ñoo gën a dee ñu ñëpp waaye ñun li ñuy métti le xale yi ci suñu gannaaw ñu ak seen avenir ñoo ñu gën a métti ndax lii xale bu ci bëgg dund bëgg ci yor kër bëgg sa yor say waajur faagaagal nañ la ba pare. da nga fay sa yi ñu koy fay normal amul benn taxe boo xam ne duñ ko fay marché bi li fiy génn ci alal bu fekkoon mocc bi dana dellu ci marché bi sax marché bi mën na jag jafe-jafe yi bare na waaye tey bi ci gën a pire mooy ndox mi ndox mi tey mooy suñu jàngoro bi gën a taxaw li ñu am ci jafe-jafe ci marché bi lépp bare na waaye bi gën a pire tey. mooy ndox mi te yo yo euh, ndox mi mooy mooy amuñu yoon teer bi dafa ñëw tëj ni bi teer bi ñëwee tëj ni amatuñu benn yoon waaw marché caaro yëpp tey benn buntu la boo xam ni fii la nit ñi mën jaar client yi amuñu fu ñu jaar ndax marché caaro ku ne xam na ne marché boo xam ne bu am nga loolu boo xam ne Sénégal yëpp ko bëgg. alors qu'on avait l'équipe qui était Bon, la nouvelle équipe avait des assurances. Euh, des assurances par rapport à la mairie, ce qu'il n'a pas respecté. Nous avons une mairie qui nous joue du jamais ce qu'il fait. C'est dommage, en tant qu'autorité, premier magistrature, de la de de Thiaroye il ne dit jamais ce qu'il c'est c'est dommage vraiment aujourd'hui la boue est là le marché la boue est là les sacs sont là il y a l'eau sanglante il y a l'eau nauséabonde c'est tout y compris c'est pas normal il nous avait promis cela nous nous interpellons en même temps Macky Sall mais aussi euh, le ministre du cadre de vie Abdou Karim Fofana parce qu'ils doivent, amener certains de leurs représentants pour voir, de vivre. Et nous, ce que nous faisons, c'est Mais nous avons en face de nous un, un, un, un maire qui jure du rapport. Il dit ceci aujourd'hui et ne le fait pas. Aujourd'hui, les recettes, les recettes comme Les recettes, nous avons des idées. bu ñu defoonul dara juuti bi dañ koy téye. te boobu baax tax du yem fii. Ah, Sénégal lay doon merci beaucoup lay doon.